asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur bu Equivox TV yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen waa di wax ne que rek saa su rek ñu ngi kontaan ci yéen yéen ñëpp ak fu ngeen mën a ne si àddina bi rek encore une fois daal amuñu seen fay waa parce que nag kii wax kii déglooy mbokkam waaye ki feeñ di koy seetaan la bëgg te defe naa yéen ñi ñuy seetaan à travers seen ay téléphone ak seen yeneen yi juntukaay amuñu seen fay te lépp seen connexion ngeen koy defee kon ñu ngi leen di jërëjëfal saa su ne tey nag ku na xam ne ne fan yi olof a ko wax lu def waxulu ay di njàmbat mooy làmb ji ak fi nga xam ne ni fii lañ ci toll mbër yi génne nañu wax ñu bare bari génn nañu wax ngir ne làmb ji dafa war a ubbi bi loolu amee nag mu mel ni wax ja tax tàbbiwul ci noppi ku tëx maanaam la ko dale ci président bi jiite réew monsieur Macky Sall ak le ministre des sports monsieur Matar Ba ak monsieur Bira Sène mi yore làmb ji di jiite CNC bi defe naa fan yëpp ku ne gis na ne ay waxtaan a ngi am dox ci acteuru làmb ak ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di waa waa autorités yi acteurs yi nag bu ñu ko waxee ci am pàcc boo xam ne maanaam ñooy principal yi mën nañ ne muy promoteurs yi nga xam ne ñoom ñooy génne xaalis di ko tëgg di joxe pour que ñu mën a tëgg làmb bokk na ci nag benn label boo xam ne ñëw na ci làmb ji di Equivox ànd ak benn label bu ñuy wax Vox Arena ñu tëgg ay làmbar ñu toog ak tey la DG de Equivox wala Vox Arena muy Aline Badara juuf parce que yéen laaj nag parce que démb ku ne xam na ne CNC bi dalal na leen ñoom promoteurs yi lu ñu fa jële huis clos bi ndax day am bu amee ci yan condition lay amee monsieur Diouf maa ngi lay nuyu di la ziar Aline Badara waaw sëñ Babacar maa ngi lay nuyu di la mhm. ziar di nuyu sénégalais yëpp di nuyu aussi monde lamb mhm. euh, di la remercier bu baax euh, invitation bi mhm. bon di rafetlu aussi euh, li nga xam ne ni moom moo fi am boobu ba léegi di xaar ñu xuus si waxtaan bi am na solo Alioune Badara Diouf euh, mën nañ ne tey yow yaa nekk ci bopp label bu ñuy wax Vox Arena. lu jëm ci làmb ji. ok seen diggante ak presse tamit dinaa ci daal parce que am na ci ñu doon ñaxtu que ni li ngeen di organiser da ngeen ko bëggee yemale ci seen bopp kese ba du ngeen ci dugal presse bi yu mel noonu loolu yow loo ci mën a leeral. non xam nga communication moom soo koy def étape par étap la peut-être am na foo xam ne boo fa tolloo yow nga nekk organe de presse ba pare nga organiser am na premier acte bi moom mooy am na niveau boo xam ne bu ñu ci tolloo yow rek génnee. yow yaay communiqué loolu daf lay permettre nga mun a parce que mus naa toog si plateau ñu pose ma benn question comment est-ce que vous avez seen i te kenn yëgu ko waaw maanaam loolu li ma ci mën a tontu mooy ñun euh, dañu am web TV donc su fekkee ne ñu ngi démarché ay combat bu ñu fa waree wane image ñun groupe Equivox ñoo koy wane suñ fa waree interroger nit ñun ñoo koy interroger donc loolu maanaam mën nañ ko denc ruq ba doxal taxawal la ñuy taxawal soo ko génnee léegi nag bu ñu demee nag ba nga xam ne lépp taxaw na ah ba organisation bi yëpp ñu fisale ko su boobaa nag mën nañ invité presse bi pour ñoom tam ñu ñëw def seen i interview joxe ay information ak loolu dem ci mbër yi daal dem ci mbër waaw waaw loolu rek lañ ci jublu léegi tamit su ma fi may ñëw dafa naa mën nañ ne foofu la ñuy mujjëm mooy euh, CNG bi dalal na leen hmm. yéen promoteurs yi yow yaa nga foon en tant que promoteur ci bu yore Vox Arena seen daje boobu ngeen daje ak waa làmb ji biir asin nag euh, comité ba mu yore lan ngeen fa jëlee tey loo xam ne mën ngeen ko teg ci loxo yi nit ñi parce que coow li bëri na ci huis clos day am su amee nu muy amee ndax état dañ la jox xaalis wala yu mel ni ki noonu nu mu demee mbir moomu. ok parce que voilà euh, rencontre boobu euh, je dire que continuité la woon ci waxtaan bu président CNG ak euh, wàllu ñi nga xam ne bokk nañ ci làmb bu ñu doon waxtaan ak ministre bi le samedi. parce que ñëpp dégg nañ ci xabaar yi que ministre bi dafa waroon recevoir le président CNG donc foofu aussi maa ngi fi euh, saluer vraiment euh, taxawaay président CNG parce que ci réunion bi expliquer nañu nañu moom la ñu woor mais moom moo sàkku ci ministre bi ah que mu associer ci promoteurs yi associé ci aussi mbër yi associer ci amateurs yi ak managers yi pour ñoom ñëpp ñu ànd dem wuyu ji ministre bi dem waxtaan lañ fa waxtaanee woon nag man nekkuma fa woon mais quand moom après bi mu jógee foofu dafa convoqué les promoteurs la lundi pour ñu ñëw fale euh, arène national ñu toog ñu waxtaan lañ doon waxtaan nag mooy continuité waxtaan bi nga xam ne moo amoon samedi ak ministre bi. ok waaw. ok continué de waxtaan boobu ngeen doon waxtaanee mais ci côté huis bi nit ñi maanaam ñuy xaar ndax dina am parce que amateurs yi am na ñoo xam ne boo leen waxee dañ naan la ñoom waxuñu wax huis clos bëgguñu ko mm. xanaa kay ñu jël mesure barrière yi xool bu fekkee mii la war a dugg mm. ñu fexe euh, euh, cinq cent personnes dugg pour ñu organiser ko yéen ci lan ngeen tënkante ak ñoom huis clos wala voilà parce que waxtaan boobu pour être bref euh, benn ordre du jours bi lan la woon mooy ministre bi décidé na ah nguur gi décidé na def làmb ji huis clos jël nañ décision boobu. waaw loolu moo génnee ci waxtaan bi nga xam ne samedi ministre bi defoon na ko ak waa axlu làmb hmm. ak président jiite président CNG jiite ko loolu moo ci génn mooy huis clos léegi nag naka la ñuy organiser huis boobu moo taxoon euh, le président du CNG convoqué réunion voilà ci loolu. ah naka lañ koy balaa ñuy dem lañ koy organiser est-ce que hmm. huis clos bi yéen ànd ngeen ci. bi waaw ànd nañ ci. yéen promoteurs yëpp. bon parce que bi ñu nekkee ci réunion foofu man nekkuma woon ci réunion bi samedi. mais dañ ne bi ñu jàkkaarloog ministre bi. la majeure partie. pratiquement mën nañu wax ne pour cent ci ña fa newoon. waaw d' accord nañ ci euh, ci. ci huis clos bi à condition que état accompagner leen. ok léegi état nag ni mu leen waroon accompagner. loolu lañ nekkoon di réunion lundi. lundi moom ngeen réunion kon lundi li accompagnement bi nan naka lay demee comme yaa ngi foofu. voilà pour le moment ministre bi dafa ak équipe ñu wax ñëpp ñi nga xam ne amoon nañ licence daaw. te taxawaloon ay journée ak ñi nga xam ne taxawal nañ ay journée ren ah te def ci xaalis te xaalis ba tëdd fay nelaw te ñu mënoon ci liggéey def ci leneen ñu bind ay projet projet yoo xam ne maanaam lépp la ñu dépensé ci journée yooyu ak seen frais organisation yi ak lépp li nga xam ne moo tënku ca bés si journée yooyu ñu def ko benn rapport boo xam ne CNG moo koy tënk jébbal ko ministre bi maintenant nag ce sera à l' de l' autorité pour xam kenn ku nekk lan lañ la war a jàppalee parce que journée yi aussi ki tëgg VIP ak ki tëgg combat bu yamamaay am na duñ bokk ndimbal mhm. waaw donc loolu moo tax ñu laaj projet ku nekk boo fisalee say dépense ah ñoom dinañ mën a basé wu ci loolu pour xam naka la ñuy accompagner promoteurs yi mais daal président CNG moom sàkku na ne pour bu kenn perte ok waaw bu kenn perte mhm. te lañ fa waxtaanee aussi ah buñ ko doxalee noonu am nañ yaakaar ne boo autour sax nii mooy gën ci promoteur yi gën ci mbëri mais est-ce que dina baax ci ñiy seetaan waaw ñiy seetaan loo gis rek ay solution waaw solution yi aussi am na ay proposition yu ñu def ci li jëm ci naka lañ ko war a organiser pour ñii seetaan seulement euh, sport moom dafa neex chaleur humaine boobu nga xam ne moom la nit ñi di am ci làmb ji nekk en contact direct ak public bi et tout ça mbër mi tamit day soxla loolu supporter bi aussi soxla loolu yéen waa Equivox da ngeen am solution ci maanaam ñi nga xam ne dañoo nar a toog seen kër ba ñu ñëw stade seetaan si waaw ban pro maanaam ban solution ngeen ci am yéen waaw euh, dafa def euh, avant situation bii di am Euh, contexte actuel bi Equivox mu ngi nekkoon ci liggéey ci benn euh, plateforme euh, de diffusion boo xam ne de live streaming lañ koy wax maanaam dédié exclusivement au sport ak à culture maanaam plateforme boo xam ne la PPV la mais sport ak culture lañ fay développé ñun xalaatoon nañ ko ba nekkoon ci tànk lancé ko le 31 bi di ñëw bien avant ministre bi di prononcé wu sax si lu jëm ci euh, huis clos bi. donc ñun avancé woon nañ ci loolu. ok waaw euh, loolu te yéen xalaat ngeen ne su ngeen ko defee ñi ñuy seetaan su Sénégalais yi nekk fii parce que bu dee à l'étranger ñoom mën nañu am bañ a am problème mu mhm. mais Sénégal fi moom ku ne xam na ne connexion moo fi problème da yor sa téléphone sax jënd sa connexion des fois opérateur yi xam la def li la wala nga dina ci biir Sénégal am problème mu kon defe naa bu ngeen ci ay pay bi am na fi nag ñuy féliciter Ibrahima Faye mi nga xam ne moom moo ko fi indi ba maanaam léegi promoteur yu bëri bëri di ci intéressé di ko def mais problème bi mooy est-ce que réseau bi bu keroogee di ngeen mën a def lu tax maanaam ki jënd paasam war ko toog këram seetaan ko est-ce que moom dina ci gis boppam tamit voilà xam nga aspect yooyu yëpp dañ ci réfléchir mhm. par exemple ñun suñu plateforme bi euh, je profite de l'occasion pour lancer plateforme fi officiellement ci plateau Equivox TV Euh, ak sama doomu ndey Babacar. suñu plateforme mu ngi tudd Afrinet. Afrinet. Afrinet la tudd. Afrinet. Afrinet waaw. ok Afrinet maanaam boo ko déggee c'est l'Afrique libre sur le net l'Afrique libre sur l'internet c'est-à-dire tënk bi nga xam ne moom la ñun africains yi ñu tënk woon. ah dañ bëgg a dañ bëgg a dañ bëgg a tekkeeku. waaw am ay possibilité yoo xam ne ni maanaam ci fi jamono toll ci technologie ah. ñu développé ci loo xam ne day nekk plateforme PPV boo xam ne diñ de son nom boo xam ne lépp luy luy luy bëggee lu koy téye lu connexion bu yéex loolu mu am fluidité am sécurité maanaam Afrinet soo ko déggee Afri. Afri. Afrinet. Afrinet waaw l' Afrique. Afrique boo ko déggee mooy liberté libre. libre voilà moo tax ñu ne la l' libre sur le net. waaw. Afrique nan net bi mooy internet. net bi oui bien sûr waaw l' Afrique libre sur l' internet. mooy free bi quoi mooy free bi. free moom bu ñu ko waxee daa daa benn kii opérateur bu ñuy xalaat. non non non. Ah, <laughs> free liberté. waaw Free moom. ci ci liñ ci xam balaa. Mm. Euh, libre lañ ci xam mais bu ñu waxee ci wàllu net ak connexion bi stable ak yooyu boo nee Free fi mu nekk nii ci réew mi ne yaa ma gën a xam nit ñi am na fa seen xel di dem ndax xel moom mu ne su ko yeew mais da ngay jàpp nag Afrinet la. Afrinet Afrique. yéen daal Afrinet daal ngeen di. libre yéen waaw Afrinet. ok ndax euh, euh, nu ñu fii ci dëkk bi di yore wàllum connexion beeg réseau yeeg bi est-ce que da ngeen am ci àndal. voilà pour bañ a balaa ñuy yegg foofu d'abord Euh, dama la bëgg a expliquer ne Afrinet boobu c'est développé par cinq ingénieurs américains. ay ay américains ngeen ay américains lañ ci àndal ñoo xam ne ñoom ñooy liggéey plateforme boobu. ok nekk ci côté fluidité. fluidité maanaam mu woyof. mu woyof waaw ba nga xam ne début connexion bu gaawul sax boo ko amee nga mën a setaan te du am benn. dagg-dagg benn dagg-dagg. ñaar sécurité maanaam ñu aar ko. ba nga xam ne piratage ah ay blocage yeeg ñi nga xam ne ay caacaay rek la ñuy xalaat pour ku jóg pour def lu baax ñu yàqal la. ñëpp voilà. Mhm. yooyu noonu yëpp dañ ko ci prévoir mu nekk lu mucc ayib loo xam ne incha allah buñ ko lancé sénégalais yi dinañ xam ne ah bii moom bokkul ak yi fi doon daw. américains yi ngeen ñu base ñu ngi wala. ñu ngi États-Unis pour le moment. Mhm. mais yéen a ngi yéen liggéey ñoom. ñu ñoom tous les jours ñu ñuy jox ay rapport di ñuy développer di avancer. te leer na leen daal yow kaana yooyu dooy nañ leen ci li ngeen bëgg a def ne dinañ ci am satisfaction. waaw sénégalais yi. waaw àdduna a rassurer ci kàttanu yàlla bu ñu ca yeggee. incha allah parce que àdduna moom ko ko xam xam ne États-Unis euh, lu jëm ci côté technologie ah xarañ nañ ci lool lool te ñun aussi euh, ah c'est un projet boo xam ne dañ ci dañ ko comprendre dañ ko bind ah gëstu ko lamb ji ñun ñoo koy dund Afrique aussi réalité yi ñun ñoo ko gën a xam tubaab yi. donc loolu yëpp nag dañ ko bind defar ko ba mu baax ñoom ci loolu maanaam la ñuy tënku pour mën a développer plateforme boobu ba nga xam ne du am benn. xam nga on a prévu façon transaction yi nekk fii yëpp yoo xam ne mën nañ ko utiliser. pour jënd pour pour pour abonné ci. Mhm. pour maanaam jënd code yi. voilà donc système de paiement yi nekk fii yëpp nañ ko ci intégré su ko defee njënd mi yomb. waaw loolu tamit mu nekk benn pas boo xam ne vraiment lu lu lu am solo lay doon. mbaa du non du cher. du cher dañ koy def ba nga xam ne kenn ku nekk rek dina ci mën a am euh, accès te du métti te aussi li ci gën a am solo mooy euh, par exemple événement bi bu ñu amee signé contrat bi ak euh, benn événement wala mu nekk événement boo xam ne groupe Equivox moo ko organisé une semaine avant événement bi mën nga fay sa abonnement comme ça live yi nga xam ne dafa jëm ci xew-xew boobu. ci xew lépp nga mën di ko suivre. ci plateforme bi le temps que ñuy yegg événement bi ba bu bés ba passé aussi dinañ ci teg ay quelques jours yoo xam ne hmm. dina am ay interview yoo xam ne dañ koy seeti mbër yi dina am ay interview yoo xam ne dañ koy dem di seeti organisateurs yi yooyu loolu yëpp mun nga ko di suivre ci plateforme bi euh, ay bés yoo xam ne ni topp na ci événement boobu. am na solo voilà loolu moom mooy moom mooy Afrinet. loolu mooy Afrinet quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu am na solo kon sénégalais yi fu ñu mën a ne daal ah loolu la leen waa Vox Arena fas yéene defal yàlla nañ ko réussir nag parce que tamit loolu la olof bi wax ne kon bu fekkente ne am na looy tàggoo Alioune Badara lan lay doon. bon li may tàggoo rek mooy bii euh, la gërëm. Mm-hmm. Euh, si invitation bi di la sant bu baax. bon le fait doon l'occasion ñu toog ci plateau bi expliquer Sénégalais yi aussi li nga xam ne nii moom moo nekk en vue de la saison deux mille vingt deux mille vingt et un mhm. ak aussi projet yi nga xam ne moom la ci Equivox am. ak euh, plateforme bi nga xam ne Equivox mu ngi ciy liggéey. Euh, bien avant situation bi di am ñun ñu nekkoon di xalaat ci loolu et je pense que bu ñu ko lancé Sénégalais yëpp nañ xam ne lii kat loo xam ne liggéey la lu mucc ayib la loo xam ne kenn ku nekk mën na ci gis boppam te aussi may préciser ne làmb ji huis clos bi ah euh, nekk na loo xam ne en sus de euh, état li mu def accompagnement bi pour jàppale les promoteurs mm-hmm. ah mu aussi def benn communication ci làmb ji ba nga xam ne les entreprises privées ak entreprises yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal te am doole ñu mun a ñëw ci làmb ji jàppale mbër yi jàppale promoteurs yi parce que làmb facteur de développement la. xam nga tey jii ah, ku wax ne làmb du facteur de développement yow li ngay wax da ko wax noonu rek parce que mbër dafay bëri am xaalis dem jënd fee ab tool jël fa dix gardien ñuy arrosé que liggéey mu leen di fay salaire mbër jënd terrain. ca àll ba tabax ko immeuble jël gardien teg ko fa ah wala mbër jël tabax benn hôtel jël ay employé dugal fa xam nga loolu yëpp mbër yi ñoom dañ ñu ngi employé ay doomu adama hmm. yoo xam ne ci liñ leen di fay ci loolu lañ ki ci lañ koy jëlee donc facteur de développement la moo tax état aussi dafa war a penser di jàppale mbër yi ah jàppale promoteurs yi aussi inciter les entreprises vraiment yi nga xam ne am nañ doole Sénégal pour ñu jàppale làmb ji bu baax a baax baax a baax am na di gërëm ñëpp di sant ñëpp voilà di gërëm techniciens yi. waaw waaw El Hadj ak Khoule. waaw toujours yow moom say. vidéo toujours dañuy dégg El ak Khoule. waaw parce que waaw ñu ngi leen di ñu ngi leen di gërëm bu baax. di leen sant togg buñ ko xoromul du sotti te ñoom ñooy xorom si. techniciens yi jëruñuy fàtte mooy caméraman yi monteur yi. yaa ngi dégg ñoom defe naa bu ñoom dara du baax. kon yow di la gërëm rek di ñaan yàlla yéene boobu ngeen am yàlla na ko yàlla sottal parce que tamit lépp Sénégal la rek parce que tamit ku mu neexoon la nga yor mën nga koo téye yemale ko ci sa bopp waaye bu ngeen amee encourage bu toll ni ñëw nag investir di nuyu tamit euh, techniciens yi comme ni mu ko waxee hélas maa ngi koy bëggee bu baax baa hélas Diouf di nuyu xulle ñoom ñoo nekk ci ginnaaw lu rafet rek wala lu leer image ñoom la di nuyu tamit Cheikh Omar moom tamit depuis France di ko nuyu ak soxna di ko wax ne namm nañ ko xam na ne léegi mu ñëw di nuy groupe bi yëpp daal Equivox groupe yëpp maa ngi di bëgg di leen ñaanal jàmm di wax ka ni daal Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm di nuyu suñu soppee fu ñu mën a nekk rek ci àddina bi ñu ngi leen di bëggee waaye di nuyu Asi Diagne ci Nouakchott moom du ko fàtte benn yoon maa ngi koy bëggee di ñaan senegal yàlla dafa yàlla def jàmm di kontaan si ñëpp di leen wax ne nag beneen incha allah rabbi dinañ fi daalaat keneen tamit waxtaan ak moom parce li may wax rek mooy Vox Arena pour làmb la làmb nag buñ ko waxee kenn génnul ci biir ñëpp ngi ci biir fii ci mim réew parce que li tax mooy Sénégal sport bu ñu am muy sport national làmb la comme ni ko gars yi waxee jëggaane wuñ ko suñu yëf la kon nag Vox Arena dafay nekk pour képp ku yëngutu ci làmb